da nga wóolu na ma ñaaw bi ma nekkee géej gi loo nekkee woon ma ñaaw na ko ba ma juddoo sama ndax sama baay ba léegi mosuma wax lu dëkk mbàkket bi nga nekkee géej gi ma woo kan fóore yi ñu wàccee ñaar fukki ak ñett di ñaan nga si géej gi sëñ na ko ma ñaaw loolu jublu loolu jublu woon mu ne ko dëkk ñaan du soxor waaye damaa ne mbàkket boo desee fii Sénégal kenn du am taalibe sëñ doon na ko ma ñaaw boo ñaawoon sama barke ma des si géej gi waaye alxan ngay ñaan laa ko yóbbaale woon si mu ñaan see wax ci xel mi ci xel mi waxu ci gémmiñ ci xel mi daan na métte ko moom alxuraan sëñ Tuubaa ne ko ma ñaaw ma ñëw la ñoo kenn dugg ci néeg bi ma ñaaw si la daa mbokk arxaan ba fu mu toog arxaan la tari mu tàmbali tari Faatiha alhamdulilahi rabbil alamin lu topp arxaan rey xamul sax arxaan rey moo topp ndax nag xam-xam yi nekk boobu yëpp sëñ Tuubaa nocc na ko ma ñaaw si la gàgg taxaw rek di xool sëñ Tuubaa tëdd ma ñaaw lu xew mu ne ko Mbàkke dama ni ku mën a génne ay araf ci bopp sa nga yóbbaale kaay fu la neex sama ñaaw si la sa jox woo ko lu ci néeg bi sa jox wal ko génne càngaay gu bind ayatu kursi yu desul yuux mbëkk mi ba na ko càngaay lii bi sama baay génne àdduna ca weer yële maa ko ay dëkku si bit nekk bind sëñ Joano keroog ba koy sang ba maa lambar nag maa yomb keroog ba koy yor tubaab bi ko nangu yóbbu ko ma nga Tuubaa ak jant ñëwagul fii ba ma la Rasulullah sallallahu wasallam da ngay Rasulullah ko da ko daal fa ba ngoon ñu dégg donga yi tàmbale daanoo naan sëñ Tuubaa mooy rasulullaay xam murid yi léegi dañuy wax yooyu am ñaan sëñ Tuubaa mooy yàlla yi na fekk ñoom ñoo koy weddi ñoo bokkaale ah sëñ bi dama ni sëñ Tuubaa mooy yàlla fi mu ne boo ko ci baax dëgg bëri nañu rëcc daa ëpp a wax xam nga ëpp naa wax sëñ Mbaye na ba nga waxee sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jël suuf def ko ci gémmiñ gi naan li wax ëpp na sëñ Mbaye Sarr jël yokk ci suuf da ko def ko ay points points suuf dem ca marché mat Ndimba Diop ba ca Njaaréem naa leen suufu yàlla sàng nii gars yi di ko jënd ba mu jeex tàkk mu def ko ci ay points ñu sojjwaat ne ko yàlla mi la jël suuf def ko xaalis xam nga ne yàlla nga loolu tolluwaayam la woon. doo ngay ne sa jowaan mooy Rasulullaay naar yi dégg ko ñëpp sa jowaan wax sa doo ngay ne yaay Rasulullaay sëñ jowaan doon doon de tisbaar lañ ko wax sëñ jowaan dalal la bi toog sax sëñ jowaan lan am mbàjj mu rafet daanaka ñetti naar dañ toog ci mbàjj mi woo ci mag ñi ne leen ku mën benn man na ko mën naa ko mu ne nag bu mu foor bu mu foor ba mu naa ba mu ëpp naa bi bu mu suufee ba du ko dégg te mbaa xaar jox ko fi day génn mag mi toog tuuti sëñ Tuba naari yaa ngi toog ngeen déglu fekk jàkkaarloo sëñ Tuba ñoom naari mag mi toog jàkkaarloo naari na na mag mag mi daaj alhamdulilah xaqil mubiin man kaw bi léegi biin ala kitaabu si baax tamit ñaari naari nag jàkk sëñ Tuba di ko xool melokaan bu sëñ Tuba egg ca jël bi ne rasulaay noonu naari xoolee sëñ Tuba mel noonu bu dee Rasulullah daa weex ñu xool su jaay mu egg ci wajjoo mu dawar ñu xool teel sa jaay mu kutt mbal mu egg ci wàllu fa jëlee maa unamir fukki baaraam Rasulullah dana génne ndox ñu xool fukki baaraam Sëñ Tuubaa mu génne ndox Sëñ Tuubaa far ko ci biir néeg yi naan na ko yaay Rasulullah yeneen naar dañoo ñëw ni ko dégg nañ yaay sunu maam te sunu maam weñ daaw ko laal amul takk ndeer te yow am nga ñaar yëpp Sëñ Tuubaa ndax xam ngeen seen maam ñaata yoon la ñëw naar benn naar na ko loolu kenn xamu ko sëñ Tuubaa na ko déedéet da nga naan da nga naan xamu ma ko. waaye bu ne kenn xamu ko. <laughs> daanaka ko sax maam Rasulullah ñëw na ñetti yoon jamono. bi mu njëkkee ñëw leer la leer du am takk ndeer weñ du ko laal. ñaareel ba ruu la boole ak leer ruu ak leer du am takk ndeer te weñ du ko laal. ñetteel ba jëmm la te mooy Ahmadu mii daa boole ruu ak leer ak jëmm muy Ahmadu Mbàkke mii. daanaka ko am ruu rek am jëmm am takk ndeer foo jaa foo jaa am takk ndeer am am aweñ looy laal. loolu leer nañ sëñ Tuubaa kon mooy Rasulullaay dondu ko dondu doomu ko def ku sa bàyyi dee yaa koy dondu sëñ Tuubaa dondu Rasulullaay nga ko doon xar fan bi xar fin nag maanaam moom moom da ko doon waaye da nga déggoon da ko doon waaye dondu ko da ko doon day Rasulullaay sëñ Tuubaa jéggi na foofu sax yàlla gi ba gars yi ñi laa bëgg a leeral yàlla ci yéen dox boo sant suuf maa ngi ne sëñ Tuubaa yàlla la sëñ Tuubaa kay lay wax ne ma demee ak yàlla dégg leen baax na ma leen wax yàlla ngi nii moo bind ñëpp yàlla ku dul yàlla ku nekk mbindeef nga mbindeef yaa ngi nii yàllaa ngi nii mbindeef yaa ngi nii yéey am ci àdduna ku dul yàlla ku nekk mbindeef nga yàlla mooy kenn moo fi njëkk lépp mooy mujj lépp yàlla kenn la suy naax ma li baax baax yàlla ko bind yàlla bind ñëpp mu bind suuf bind asamaan bind àjjana bind safara bind lépp sëñ Tuubaa gi mbindeef ginnaaw yàlla bind lépp yàllaa ngi nii ku dul yàlla mbindeef nga sëñ Tuubaa gi waaye ab diir bu gàtt waaw ab diir bu gàtt sëñ Tuubaa ne yàlla mii fekk ma ci mi def fii ma teg ma fii nazarani minal wara na wa minhum nazarani muhammadu yàlla ma fekk ci mi def fii nocc ma dama amoon mbaa ki génnoon nii ma génn mu ma fii ci diggante bi nag problème baa ngi noonu nag yàlla indi problème bi sëñ Tuubaa du mi def du yàlla lam doot mi ngi ci diggante bi sëñ Tuubaa toog toog fii nag léegi yàlla na ko nag taxawal fii mu taxaw dégg leen wax sëñ Tuubaa baax sëñ Tuubaa waxul waxul dama dund ci dama yàlla gi de yàlla ma dugal bi la wax waaw dèjà. noonu la ko xam ne weddi na yàlla mënu ko kon yaa bokkaale yàlla. kon yàlla mënu ko rek da nga ko ne yàlla mënu te ku xuloon yàlla mënu rek bokkaale suñu borom. inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla lépp lam kattan yàlla mën na lu nekk. ne ko amul taxawal fii ba caag moom amul kaay sax dugg sama dund ki fii ma fi nekk nga fi nekk dama xayaati lii xayaati daahi allah ko daahu diyaani laahi yàlla ma sëñ <laughs> Talla sama dund gi la yàlla ngeen wax dundam gi kon ngeen dund la yàlla na woon nag léegi taxawal fii ci sama diggante ak jaam yi la tàmbale ca Adama laa wax ba ki mujjee juddu ci àdduna ku bëgg a ñëw ci man na jaar ci yow sa jaam bi ne ko de axtaan yàllaahu baabuhu man na wax lu nekk bind la lay wax sëñ Talla yàlla ma jox bunt ba wala yamuuru kenn du dugg wala yamuuru kenn du génn ilaa masiati lu sama ndigal man sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ku bëgg xam jógee ci yàlla balaa nga dem ci gars yi faam nga jaar ci man daan nag ku yàlla defal defalul tawfeex nga wiiri feneen di ma teggi ne boo àggee ba tamit ba nga fekk tëj ko sëñ Tuubaa ne nag mel ne ngay appuyé ila Tuubaa bi te amoo ci ndigal da ngay dem ba tub ngaabu ñooy tourné départ Thiès ba ngaabu ñooy tourné nga yàq gasool bari yàqu tax te doo yegg nee na ku jaari feneen yàlla boo àggee yàlla naan la eh Amadou way gudd ba Amadou sallintu min al ahdayi turan maatija li rab yoo baabu laa lan buntu bi yàlla ba man rek a taxaw kenn duñu ko xanaa leer la kon yàlla ak sëñ Tuubaa noonu la demee mooy yàlla daa jël dundal sëñ a gi jeex ko dundam gi ñu ngi leen nag. sama jëm si fi la jógee di seet sëñ Tuubaa gànnaar dem ba ci kenn tax dara mu toog di xalaat man ki ma jëm la am du yàlla ci xel mi benn soxna fekk mu toog soxna na ko dégg naa sëñ Tuubaa nga ko waaw mu ne man de mënuma dem gànnaar waaye jokk soo eggee nekk mooy sama siyaar ci si la ak rek sëñ ne ko ndax am koo àndal mu ne ko ànd ma kenn sa jaanoo kenn yóbbu dina ci man mu ne ko ana sama sama jox ak puso de sa jaanoo puso boobu ak junni gars yi ñoo yem ndax yéen a jë daana ko tegal ma ko noonu daana ma jëm seen mu ne ko mu ne ko mu ne ko mbàkke mu ne ko juwal gàddu ma set la gi mu gàddu set la gi ñu génn kër gi sëñ tuwaa defal ma jàpp sama ñu si def mu sëñ tuwaa jàpp ba mu egg si tànk sëñ tuwaa bi mu xool tànk bi ak ni mu tuutee dëggu tànk li mu ne sëñ tuwaa tànk mu tuuti yi ak jëmmam si tuuti yi tuwaa bi yóbbu ko bu dégg suuf te mu ko rey sëñ tuwaa la ilaha illallah nak mo dem musilla la bi limi tut tut lu ngi abna allah àllaxira tànk bi ko ngi naka ma jëm si la ah loolu la ki xam ku ko lijjanti. boo ko weddee yàgg caat bu yebal xamee ngeen lijjanti ko ku ma weddee naar yi bëgg a wax sëñ bi wax fekk ko maam Cheikh Fall na ko kaay jëlu naar bi ma wax la ni mu demee ak Rasulullah su noppee nga wax ko man dama demee ak Rasulullah naar bi ñëw nuyu seen Cheikh Fall ñu ko ci naar bi naar bi nag daa bàyyi xel Cheikh Fall na da koo ragal naar bi tàmbalee lim ay maamam naan diw sërif di way bàyyam diw sërif di way bàyyam diw sërif di lim di lim ma ñàkk a tuur xëpp xëpp te ay guddi maamam moom ak guddi Rasulullah

moo tax boo déggee ñoom man dama sopp rasulullah yi waaye Ahmadou Mbacke bi ci Tuubaa mënuma ci moom dara da ngay sonn rek waa doo jëriñ ah gars yi dañuy bañ dafay day lekkum neew dañuy dégg gëm gis weer bi sëñ Tuubaa ko ko weddi sax na nga dem sëñ Tuubaa mu ne xaraba kulli man saxaawa ila siwaaya wala teew sëñ Tuubaa ne ku doon def sawara dama dama ab bant xanaa xamu ne ko bañ sëñ Tuubaa jarul jarul jarul ñaanal bàyyi leen ko rek sëñ Ibrahima Mbacke dafa wax ne sëñ bi daal da ne bañ sañ tubaab ñaar la bi ngeen nëbbu ak bi ngeen feeñal te bi ngeen baaxu ci ñoo ko mbàkkee noo nu mu ne bañ sañ tubaab nëbbu ko mu ngi mel ne nga naan poson sa kër xoolal poson naan ko poson xool ko sa kër naan ko dem toog ci pénc may waxtaan da ngay jëf daal ne daal la dee loolu mooy bañ sañ tubaab nëbbu ko boobu garaawul de xam nga bu garaawul ne wane ko mooy dem ba ci pénc ma sotti ko essence si kaw sa bu ci baax benn baaxut li waa sëñ Tuubaa léegi ku ko bañ xam nga dama bëgg ngeen dëkk ba gis ko sëñ Tuubaa xam nga ko laaj ne ko loo bañee sëñ Tuubaa non fu mu wax yow bu fekkee jaamu yàlla la bàyyi sëñ Saliou Mbacké mën ñëpp xoolal ku génne ci jàkka ji génne ci jàkka ji maam Thierno di wax ak moom mu ne ko fii laay teggee dem ci géej gi di ma ñëwaat fii de ku ñu wax da ngay da ngay dem voyage suba da ngay waaj da koy fanaanoo barki moom Tuubaa fii laay teggee dem te kenn ku ñu sëñ Tuubaa sëñ ba ko ñaanal loo xam ne di ko sangoo barke maam Cheikh Ibrahima kursi laay lay kemal Sëriñ Tuba lisaan zikri wa shukri rafa bi xas yow kursi la wax lu bii mu naw wiri bu nuuri wax yi ne sama xel mi li koy leeral mooy leeru wax yi fi alquran di jógee sama xel mi jógee may sotti xasi day mën Sëriñ Tuba moo tax maam Sëriñ ngay Fall ne na coow daa bëri lool Fall coow daa bëri lool ndax am na moom coow baaxoo waaye yow nga xam waxta génn lay doon Sëriñ Fall la wax daanaka yow da nga bàyyi mën ko Fall mu ne ko xool boobu baax man ma xam ne man Cheikh Ibrahima daal def bu baax mu ne ko xool man Cheikh Ibrahima ma xam ne baax su yomal xëyaamee su ma nekkee nii lay mel sax du ma lekk suuf du ma lekk nee na yomal xam nga gis ab talib dàqam sëriñam ñuy wër mbooloo bi kon nag yow man man yow ma yafiru moromin ak yi wa abi wa sahibati wa bani koo daw mooy du man koo na yow mooy du man Cheikh Fall ba waa yéen Baye Fall anam yëpp nee na ma yow Fall man leen ma la Fall La ilaha لا Cheikh Ibrahima bégum baay faal yawa di Cheikh Ibrahima jërëjëf maanaam sëñ Tuubaa mu mel noonu maanaam boo ci wax moom sëñ Tuubaa li nga xam ne sëñ Tuubaa moom mu alxuraan ci lu zaahir rek waxu baatin sëñ Cheikh Tidiane Almaktoum yal na yàlla yokk leeram daa am sa dajale siyaare ci course bi ñuy gàmm gàmmu googu moom fekk naa ko fekk naa ko moom bakkan la daal mu ne xam ngeen fa Alxuraan dëkk si Cheikh wax de xam ngeen fa Alxuraan dëkk ñu ne ko màkk mu ne fa la juddoo waaye dëkku fa Alxuraan màkk la dëkk wàcc iqra bismi rabbika la sa wax seen axame ci màkk gaa yi na ko Madina mu ne fa la yoroo de waaye dëkku fa gaa yi naa ko am si de yaa ko xam mooy nag bu leen soxor tubaab la dëkk barke alxuraan ko mu ne sama baay Abdoulaye mii moo jël 300 millions tabax ak keur deugo dalé daanee kaamil mosu leen ko dégg fenn ci àdduna ndax ko mosu dégg fenn yow keur ko gaa ngi ni mu ko dégg fenn mbooloo gi ni mi dégg dégg amul dalé kaamil wala leen rek nit 300 millions wala 400 millions da ko ci génn kër kër gum dëkk moom ah keur 12 millions nga keur gi 12 millions la def tabax ko àdduna muy Tuuba Cheikh Abdoulaye Mbacke la mu ko def na mu def alxuraan moo tax alxuraan def ko na mu ko def al mo mubashshara bil janna sayyidina xamé fuk do digul ajana sayyidina wa mo ko kul man bi ta'ala khanaja min kadari dunya wa fi yawmin naja ku do so ginaaw bi jugo fi mu ko ci na naxi aduna tay man xam da tagaj jara tok ci ginaaw sayyidina wa ta jugo adana rek mo rek bi woy ma sayyidina wa na wutu def yandu weex maam sax boobu jàkkee ngeer ji ngeen deg ñoo ñaari soro boobu jàkkee ngeer la woon sëñ Tuubaa ne waaw bi may ñëw ñaar la dama dama daw nek ci xey nit ñi ak yi nekk ci nit ñi la ndaw a ma àggee ñaar laa fekk winde yi pël ak saaway nag mu dafa ko jàkkay ngeer jàkkay ngeer dafa defar mooy ñeenti jën sam fa am mbaar daf ko jàkkay ngeer dafa jullee mooy jumaa ji ñuy tey di ziar tey ay milliards nekk fa jumaa ji moom ku koy ma jaral doo ko tabax jumaa Tuubaa ku koy ma jaral ay milliards fa ne moo jumaa mu jumaa ji du maa bu de yama xeex xanaa mooy bu àggee tokki jumaa Tuubaa du maa bu sa jaagoon بناني الباغي بناء راهية بخير خدم الله لجان راهية يلا بيتوك عبد لا يوم ملاك نيو بدي تباغي جماعي يقول لك أجل من أفضل دوتك العبد أنا كنا كوسان نيرك بدي مو مو يوم كانوا يلا ما بيركو ده أصلاً da kay ngeer fama da مو ngeer mu wo مو seray fa دويا wutul ngeer do ya mam seray fa daw ba kaddu baloji señ ligi lol tuma منك ne ko da yaa xorom mi mes orang, mboora nga daw dugg dëkk bi naan sarale ma gileem lay de gileem kenn du ko sarale ñu ne ko ginaar gu weex gën a fi nekk da koy jaay ñeent téeméer la ko jaay maam Sëriñ Fall jënd ko ñëw nuyu sëñ Tuubaa ne ko ginaar gaa ngi ne ma ne ko rendi ko dafa rendi ginaar sëñ Tuubaa ko bant jalamaan mooy mooy kurus jalamaan yi bant la ko jox na ko delloo ayam nangam ak ayam nangam di lakk ginaar gi Sëriñ Fall toog yàlla moom ñor boobu bi génn fi am kële gi sëñ Tuubaa ci lay jàpp ndox mi ci lay jàpp bu ko Sëriñ Fall këppee lu am ndox mun jàppee waaye Sëriñ Fall day dongam mag buy doog a taw ngeer mi doog a jibbi ci la dagg dafa ci am këll moom am Sëriñ Fall lak ngeer moom ñoom taw ko ca ngeer ma ñoo jox ko Sëriñ Tuubaa na ko ginaar gaa ngi mi Sëriñ Tuubaa raxasu Sëriñ Tuubaa lekk ginaar nag Sëriñ Tuubaa mosul lekk lekk ndawam da ko ne maa ngi neex da fekkee ko moom Sëriñ Tuubaa gaa naa njëriñ loo fekke te lépp moom siiri si daw ba feneen ci kanam sëñ Tuubaa ak siiru musu mooy musu mag yooyu sëñ Tuubaa ne seen faal sigge mu sigge mu ne ko lii sama ginnaaw lu mu ne ko ak lëg la mu ne ko lii de mu ne ko siiru la mu ne ko siiru si la def mu ne ko day tëru la si lëg gi ngir su génnee mu jàpp ko boobu boo nee gis nga barab sëñ Tuubaa bi mel barab sëñ Abdou Khadre fi mu nekkoon ay pexe weer ñoo fa nekkoon fa la lëg fi ma waxee du nekk fi may rey googu keroog nga réer la mujjee réewal ba sëñ Saliou Mbacké gën a jamono ci la ko réewati nee na sàkkar yàlla ak génn moom suñ suñ Tuubaa ferñeent yi sëñ Cheikh Ibra nee na sëñ Saliou sëñ Tuubaa mosaana muuñ nee na gémmiñ gi day mel ne ab jant nee na mu réew sàkkar yàlla génn moo ko Cheikh Ibra ndax dégg li lëggi wax Cheikh Fall na ko Mbàkke lëgguy wax yaa ko xam waaye man Cheikh Ibra xam ma ko ay teggin la rek sëñ Tuubaa ne ko maay borom jamono lu yàlla tàggee bu egsi man su waxee ma dégg ko xanaa loolu yomb naa gaw Muhammadu Rasulullah daa doon ma kéewal ga rëbb bi jàpp ko dem dootu paaka pour rendi ko su ne xam na mu kéwél ga kéwél na ko yow Seydina Ahmed yow xarlan bi yaa teg maa dimbali damaa may doom ay prental yoo xam ne ren nampal te rëbb bi jàpp moom soo kii damay ren ni teg maa ñëw garanti ma dem nampal leen ñëpp ñëwaat su ne xam teg kii ko gën a ko demal nampal leen te ñëw rëbb ba ñëw fépp Seydina Ahmed anal li ma bàyyi woon fii su ne xam ne ko daa nampal ay doom mu ne ko anal kéwél gi ma nekk ci àll bi soo ba léegi di rëbb amul lu génn kéwél gi nga nga nga xam gi dem nampal ay doom ñëwaat en am bu ñu toogee tuuti ñëwul may fay sëñ Naar ma ne ko wax baax na waaye rëbb bi moom xamul sëñ Naar ma tuuti rek rek kii war gees daanaka sëñ Naar ma jërëjëf li li li kii war gees wax rek jëmm ji dégg ko nee na mu mu mu yee ko sëñ Naar ma yeewu yeewu kii war gi di yee ko yaa ngi dégg na waree na waa ji sa kii war kii war nga la ak nga ko amoo kii war gaa ngi la wax waaye na ko déet mën na ko dem noonu de yow yaay kan yow yaay kan ba garanti kii war gi kii war gi dem ñëwaat yow yaay kan sëñ Naar ma ne ko lan nga kii war gi. من كيو دي كيغو ندور مانو كيما يخلو انامي خير البشر كيما سيد الاولين والاخرين كو يالله بيندي كيتيغن كيما باي فاطمه كوم كالسون كيما سيد نعم صلى الله عليه وسلم يا ديك نير نير نبا نبا نادي تيك كيو لي ناغي نخو ديما دال ديل موم دوكو سيد نعم صلى الله عليه وسلم لو موي زب يكلف كيما غا واخ نك سيد نعم صلى الله عليه وسلم والي كيما غا واخ سيد نعم ما لا دي يلا مامي كيما غا واخ maana xam wax dañ ko ci xam-xam rek léegi daan ne da léegi daan ne Cheikh Rafa sëñ Tuubaa naan ko da xam nga léegi wax Cheikh Rafa ne ko léegi wax Mbàkke yaa ko xam waaye bon xam ma ko sëñ Tuubaa ne ko léegi ne la siiru sii raw naa la ndax làqu naa ci ginnaaw koo xam ku làqu ci ginnaaw am raw waaye di siiru si tontu léegi moo gën a garaaw Cheikh Rafa ne ko la ko siiru si wax mu ne ko wax nga dëgg de ki nga làqu ci ginnaaw ku làqu ci ginnaaw am raw waaye tos yaakaar rek te yow laa yaakaar ràññee loolu la kéemaan la waaye yow ndongo la yaakaar ak moom. ñoom ñaar doon tànn ndam. sëñ Ba ne ñaar dëgg mu tànn. Cheikh Fall dëgg ginaar gi mu ne ko ah ma ko jox ko siiru si. bi ko siiru si ngànkee daa daw ba ba ci kanam sëñ Ba mu sukk di ko lekk sëñ Ba réew sàkk yàlla génn mu ne Cheikh Ibrahima mu ne ko mu ne ko Mbacke mu ne ko léegi de xanaa xanaa raw na mu ne ko waa Mbacke mu ne ko man Ahmadou Mbacke collection ginaar bi di jógoo fi di nga raw am na raw àll xalaat gën jëm. daanaka siiru si de xanaa yaakaar na mu ne ko déedéet Mbacke mu ne ko man taxul Mbacke ku ma yaakaar sa yaakaar sa àdduna sa àllaaxira gën jëf donc mooy sëñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa ne koy gëm yaakaar ko problème bi am lépp ñoo ko suñu bopp murid yi ñooy sama problème de wut dang-dang gi ñu nekkee wut xaalis enseigne Mbacke sëñ Tuubaa xoolal murid yi jàngiru xasida yi ñoom sëriñ ñu jàngiru xasida yi ba keroog yàlla lem asamaan si dañuy day tedd barke borom Tuubaa nit ñi bëgg leen mu tedd nit ñi bañ leen mu tedd ba ko sëñ Tuubaa def kenn judduwul jàng bay jàng xasida yi sànq fii am na ku doon jàng léegi may soññiwaat ñëpp nañu bàyyi jàng xasida yi ma jox jox jëme xasida bi wér benn mag day ñëw sëñ Tuubaa bu jàngee xasida sëñ Tuubaa day am lépp jokkoo ay millions la yóbbu boobu jamono ay nguur xaasu nguur daaw gaaw a bari waaye jëkk doon toog ñëw su jàngee ba yeggee rek sëñ Tuubaa li mu am lépp addi yi fi lu gars yi dajale yëpp mu jox ko waaye xëy benn bis rek yaakaar ne moom moom affaire moom na waaye du sëñ Tuubaa muy muy jàng jël jaaro xaar mu tekkoon di ko doon ci gi di ànd di ko way mu jàng ba yegg si jaara ba joxul ñibbi waaye dem ñibbi te suba nga mu ñëwaat damaa noonu sa jox na ko joxul ñibbi waaye ñëwaat ñaari fan yëpp a jàng si jox na ko joxul ñibbi te xamul dara war waral li daa ko la sa jox sa jox na ko ba ci xóotu gën a ci amul génn mooy jaaxle ba mu teg ci zeng bi rek la sa jox génn ci xasida gi kon waxu la tàccu nag te tàccu bokku ci numéro fetaxul lox li baax la waaye tàccu enseigné tàcc ñi dem sawara la rek lañ koy def Seydina xam ne ne kuréel bi jëm sawara ay tàccu la fay duggee ay tàccu daanaka koo dàq tàcc ci àdduna rek ca lay bokk maa ngi topp de yaay booy maa ngi jégalu de maam dëgg moo neexu rek xam nga tàcc na teewlu maa ngi dégg teewlu ñaan bokk moo tax waykat yi fecckat yi ndeysaan yal na yàlla wëññi gis nga ñooñu du maanaam du seen mbon de ñun ñii du suñu baax mooy bàyyi fi ñuy wax Sëñ Tuubaa de ndimbal Sëñ Tuubaa ku jàppale yow rek ku jàppale yow yaa yor yoon wii yor Sëñ Tuubaa mbaaru Sëñ Tuubaa bi ku yaakaar am nga ci jën te gis sa jën ak a neexoon nga ne bàyyi naa mur gi ba xam di saf yow jébbalu a la arrangé arrangé Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa boobu kenn ku la jébbal yaa xool ba mu mana tax ma ngi doon xamal sa jiwaa xoolal Cheikh Ndoumbé Kaba li ma waxoon sa ne ko Mbacke yow da ngaa rek Mbacke waaye ñun rek mën ko def ñun rek mana yang ko lijjanti Cheikh Ndoumbé Kaba ñun rek mën yang ko lijjanti Mbacke da ngaa baax rek Mbacke Rasulullah la ko wax Cheikh Ndoumbé Kaba juróom fukki at ak juróom tarbi Sëñ Tuubaa juróom fukki at ak juróom cinquante cinquante Sëñ Tuubaa ne ko Cheikh Ndoumbé yéex na loolu de mu ne ko Mbacke mu ne da ngay ko kër gi pot yi mën na nga xabaar ah. moo tax moom dafa bëri woon dafa kiimaane woon ah. kenn bi mu yëgeen day wàcce liggéey dañ doo ko wàcce ci kër gi lu suma wàcce liggéey ci kër gi dem fekk suñu tool àjjana maa fa bàyyi ko kër ga takk dër gi dafa déndey ca ya ca tool ya fa la wàcce liggéey xandoor bu wàccee waar wàcc xandoor dama ci waar rek wàcc moo si mën na xabaar sëñ Saliou Mbacke mi dañoo te ay ñëw tuuti waaw sëñ Saliou gis nga fii ñu nekk nii ak ñiy dégg ñiy déggu di tëj ñi ñepp amé leen tam Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacke bi sa Tuubaa jógee ci géej da wo mam ci Thierno bi daal daa mën daaru na ko daa bëgg dama wutal naa solo so xamante ne bii juróom-ñaari maam mosu ñoo mooy yalla djuroom ñaari maam mosu ñoo wax lu dëkk da du lekk loo xaraam ak jafe wa ma bëne maam da djuroom ñaari maam wax ci nday ak bàyyi rek wax mam ci bi daay wóor aw ko ba Ndakaaru ñay di wor wóor mu jël si kër way juróom jigéen si kër soxna Fatou Issa Diop mais mais ni soxna maam Thierno Ibrahima maam Thierno Ibrahima gisoo soxna soo xam mokkal na alxuraan lool sell lool maam Thierno soxna si daa mel ne moo ko yóbbu sa jox dina baax daa na gàddu soxna si yóbbu ko sa jox sa jox jël loxo mu tëdd ba teg ko ci bopp soxna sa na ko maam Thierno kii baax lool waaye du kii kii ñëw jamono kii ne mooy juróom du kii ndax kii ñëw jamono bu ñëwee jamono ku jamono teg moom dem àjjana muy sëñ Saliou na ko yaayam du kii kii baax na lool nag mokkal na alxuraan waaye du kii dana ko maam Thierno kaay dem Mbakor ci li ma xam baa ko boo demee kër kër sëñ Modou Assa Jaxate ka ngay war ma nga fa maam Cheikh Ibrahima bi mu déggoo dix bi mu dugg ci maam baaxoon boobu timis jot na mu fekk bàyyi si saal yaay seen saali Mbàkke soxna Fatou Jaxate muy bàgg tari alxuraan fekk muy bàgg bàgg dem nii tari alxuraan alif laam mii ba mu ne jëti wanaas mu ko jari moom soxna Fatou Jaxate am fukki at ak juróom benn